asalaamaaleykum mbokk internet yi nga xamante ne yéen seetaan Sénégal TV tey ñu am mbégte beneen yoon ci seen émission bi nga xamante ne mooy Bras de Casse indi thème bu am solo thème boo xamante ne dafa sos dafa concerner jeunesse bi nga xamante ne mooy jeunesse sénégalaise bi thème bi lan la muy gis nañ si jamono bi nga xamante ne moom lañ nekk nii tey jeunesse bi da ngay am ki nga xamante ne moom mooy sa coro ñu ñu mun ko wax sa gel yàlla def jamono nga am sa xarit boo xamante ne tey sa doomu ndey la sa lépp la nga présenté kooku nga xamante ne moom nga nekkal waaye ñàkk ngor bi nga xamante ne sa xarit boobu ñàkk na ko ngor mu wiiri suufu la trahir la dem di génn gel bi tey loolu lañ fa yéene waxtaan problème bi si sa copain bi la wala problème bi gel bi nga xamante ne yàlla def na ne génn nga ak moom ba mu xàmmee say copain mu mujj la bàyyi yir la dem ànd ak ki nga xamante ne moom mooy sa copain boobu si sama ndeyjoor maa ngi am ki nga xamante ne moom mooy jéegaan jéegaan niw naa la. Euh, di rafetlu invitation bi di si am contact contentement di pelloog yow plateau bi. jërëjëf si sama càmmoñ maa ngi am ki nga xamante ne moom mooy Mame Fatou Mame Fatou niwu nañ la. waaw Fane fay naa la maa ngi ñu seetaan ci Sénégal TV. di leen ngeen jëf boo leen déggee kàddu yi di nga xam ne incha allah si traité boobu lañ fas yéene traité ma commencé si sama ndeyjoor Diegane en tant que jeune fille euh, tey gis nga li nga xamante ne moom mooy dal côté góor ñi mais tamit noonu lay amee si côté jigéen ñi da ngay gis jigéen boo xamante ne macha allah yàlla da koy may mu am benn euh, góor boo xamante ne moom lay génnal mu dem présenté ko ay copinam ay copines yi mun naa ne day mel ni jalousie boo xam dañ koy am seen biir ñu mujj tourné. dem waxtaan ak ki nga xamante ne moom nga leen di présenté yow nan nga jàngatee phénomène boobu nga xamante ne moom moo nekk ci société bi léegi. waa fane di la gërëm ci question bi daanaka sax mën naa ne fi nga fi nga daanelee foofu laay jëlee man parce que yaa ngi xamal nañu en général day melne jalousie la waaw jalousie la parce que tamit ñaan weesuwul nit ki bëgg la nga ne xaritam nga daal mu def la confiance parce que man dama jàpp ne amitié buñ ko waxee confiance moo ko laal te wóolute boobu moo tax ba mu am sañ-sañu jël ki mu bëgg xam nga ndeysaan bëgg dafa fort ki nga bëgg soo sañoon ñëpp nga koy présenté bu ko defee nga jël ko ne xaa mu présenté ko sama xarit di ko ndamoo di ko loolu kooku suufu la loolu tamit mën naa jàpp ne jalousie mi ngi ci mais aussi teg bët nit ki la ndax da nga ko teg bët le fait que kooku ñëw jël la présenté la copain wam naam xam naa tamit dafa gën ci copain yi xam nga tamit am na jigéen ñoo xam ne dañoo mën toppatoo góor mën na am ku góor ki ba nga siy dugg amul woon dara nga jël ko defar ko lii ba mu neex présenté génne ko ñoom duñu gis ba mu liiwee ba mu sottee rek daa am ñoo xam ne lu sotti lañ bëgg lu olof njaay di wax lu sotti am borom mën daal noonu laa ko jàngee. daa am ñoo xamante ne loo defar ba pare rek dara desu lu yekk taaj ñoom loolu lañ soxla. kon am na ñoo xamante ne gore si côté boobu ci sama càmmoñ maa ngi maam Fatou maam Fatou dégg nga nga xamante ne moom la euh, chroniqueuse bi wax léegi nii am na ñoo xamante ne uniquement dañuy toog xaar ba nga xamante ne lépp pare na ñu mujj tourner jaar ci suuf yow nan nga jàngatee phénomène boobu. fan euh, Fane loolu phénomène la bu nga xamante ne daa existe ci àdduna mhm. euh, man ni ma koy waxee mooy ñaar nit la bokk bëgg daal je peux dire mhm. maanaam dañoo gis benn nit ki bëgg Euh, en fait man euh, d'une part bien vrai dina blâmer góor yi waaye ji ku jigéen ki tamit dinaa ko blâmer supposons yow man ma ne diw laa nekkal présenté ma xaritoon dama xam fu ñu toll ci xaritoon xaritoo xarit bi ñëw suufee suufee ko est-ce que man exactement bu ma jàppee ci mom ki ma nekkal dinaa dem di and ak ki nga xamantene moy mooy xaritam te di koy suufe loolu tamit responsabilité ku jigéen ki la il va falloir mu xoolaat boppam bu baax bu dee ci lu mu àndee ak kooku bu ci dëgg la ànd ak moom kon naru ko suufee kon naru ko suufee mu nekk lu am solo yow it day mel ni yaa ngi dellu si euh, ku jigéen ki dafa war a doon koo xamante ne ku honnête ku gëm ki nga xamante ne moom lay àndal mais jéegaan kon gis nañ ne phénomène boobu mi ngi am mu ngi continuer te mu ngi gën a bëri kon tey est-ce que yéen jigéen ñi benn instant tey boo leen amee góor boo xamante ne gentleman bu mel ni Moussa Dione tey est-ce que kon di ngeen am fit présenté ko ak seen copain yi seen copine yi tey te nga fa ne da nga wax lu am solo balaa ngaa yëg si sax si waxu gentleman da nga ne phénomène bi mi ngi mi ngi nekk loo xam ne dafa récurrent mi ngi ñëw di ñëwaat man ci loolu damaa bëgg ñu remonter parce que d'abord relation la ñuy wax ku wax relation wax mbëggeel déjà kon affaire bi thème englobant bi yépp amour la mën naa jàpp ne amour la léegi man si loolu balaa maa sori sax si biir tem bi lu tax war bi damay demaat ci amour dama jàpp rek ne kon amour mooy commencer perte valeur loolu amour moo commencé perte valeur am parce que yow même bu dee amitié xarit xaritoo rek amul da caalal kon pourquoi man man def la bëgg la bëggal la sama bopp ne yow sama xarit nga fu ma taxaw présenté la fa yow nga nga war ma déjà loolu ñaari war la man gisuma rek warul dem na jël sama gel mais sama sama confiance nga njëkk trahir dafa ñëk trahir confiance xarit bi ko jël wolu ko ba présenté ko gelam wala bi bi xarit ba ba présenté ko copain wam ba paré sogo ñëwaat si si waxum cadre généralu question bi man non la gis dama japp ne un amour, valeur am parce que nit ñi désorienté wu nit ñi si bopam ñoo ñëk désorienté wu man gis ok mu nekk lu am solo coloré mo amatul si jamono bi Fatou dégg nga si nga xamante ne mooy jégaan fan la ñëwee moom delluwaat na baat ba si ginnaaw di wax côté amour te pourtant amour mi ngi woon foofu mais day mel ni doylu mais day mel ni tamit xeet ki nga nekkal parce que bu fekkente ne tey man présenter naa la ki nga xamante ne moom laa bëgg wan la ginnaaw yow tey nga tourné jaar ci suuf kon loolu day mel ni ñàkk doylu mi ngi foofu xeet ki nga xamante ne tey moom nga nekkaloon mais loolu est-ce du dellu si valeur benn côté wala dañ koy delloowaat tamit si amour rek. bon euh, waaw fan ne dëgg naa la euh, nu mu tuddati ànd boobu. Mhm. man mun naa wax euh, amour bi set amour bi moo taxawal tamit mhm. dégg nga di parce que ci entre ñaar nit nga xamante ne bëggante nañu. Mhm. tout d'abord confiance moo fa nar a ne. communication bi tamit daf dafa nar a nekk ci seen ñaar seen diggante comprendre xaritoo bu muy wax noonu xam nga xaritoo léegi comme ni ñuy faral di wax àndandoor moo bëri xarit dëggantaan ci moment yi nga koy xam xarit bu nga xamante ni yàgg nga nekk ak moom yéenay jóg di daanandoor benn bés mu xëy def la lii nga xam ne kooku xaritoo bi des na xaritoo bi des na torop sax xaritoo bi des na trop parce que eh, moment yu difficile yooyu si lañ mën a xamee kan mooy sa xarit ok mu nekk lu am solo jéegaan yow en tant que jeune est ce que tey mosoo affronté kii bu mel noonu wala sa copine ñu mos ko def li nga xamante ne lu mel noonu la dëgg la fane li ngay wax nii xam nga bu ma amee fit ñëw toog fii daanaka dama koo dund moo tax da nga ko dund yow ci sa bopp man si sama bopp damaa xam ma nekkul man maa ko dund en personne mais dama xam ku ko dund. waaw dama xam ku ko dund. te man man ba pare affaire yi question bi tamit xam nga question bi dafa doy waar daal li ko li ko li bi moo bëri. Mhm. genre aussi fen da si am aussi si mhm. paaru jigéen parce que daa amoon anecdote laa lay wax nii benn gel mhm. boo xamante ne mi ngi génn keneen mi ngi génn ki faax mais xam naa ne góor ñi rek nu ñuy def ne la bul wax ne ñu ngi génn parce que ñoo bokk école yow daal. nañ ñu gis nii rek suñu laajee neen xaritoo lañ de ce fait sama copine dem laaj ñoom ñëpp ñu mujj retrouvé wu fenn di ànd di ànd ñoom ñëpp léegi moom gis na ne gel bi ak ku góor ki dañoo jegeyantoo su ko nee yow yow ak diw dangeen di génn mu ne ko non non man ak diw liwuñu diw sama xarit la benn jour diw di ko woo woowee ko si téléphone gel ba maanaam yow nga jël sa téléphone gel woo ci beneen gel gel ba tamit delluwaat ba sa gel ne ko yow yow ak diw nga ne génnoo leen mu ne ko déedéet génnuma yow nga dem doxaan gel ba gel ba nangu parce que aussi sa gel bi moo fen laaj na ko ñaar yoon ndax da ngeen di génn mu wax léegi nag bañ demee ba si biir ñuy dem di dem di dem ndeysaan mbëggeel bi foor rek sama xarit bi jàpp rek tëw a bàyyi ndeysaan ak gore si si amour maa ko loolu daf may fàttali wéykat bi lu mu wax mbëggeel dafa bëri doole <laughs> mbëggeel capitaine u maam Fatou dégg nga histoire bi nga xamante ne moom la chroniqueuse bi wax léegi muy ci côté mbëggeel waaye tamit mbëggeel di làqatu est-ce que kon tey jamono bi jar na yow tey boo amee sa benn waaju baax macha allah mel nu mu war a mel est-ce que tey yow war na nga koy nëbb est-ce que jarul tey nga teg ko ci internet bi publier ko ñëpp xam na ne kii maam Fatou mooy borom. Euh, fan ne du du jaaxal la mu koy tëgg ci internet mhm. sa nit ñi kii comment dire nit yi yëpp teg ci bët mhm. waaye man jàpp naa ki ma bëgg te ma xam ne moo nekk sama xol jarul ma koy nëb mhm. jarul ma koy nëb parce que la mot suufee bu ñuy wax loolu fa lay jóge comme anecdote bu mu euh, raconté ni euh, dañu doon ànd buggul nit ñi xam l'essentiel ñu gis leen ensemble bu ñu leen laatee mu ne génn ñu sama xarit la moo indi suufe bi kon suufe boobu kooku ki nga xamante moo doon nëbb relation ko suufee kooku lu muy wax parce que moo ko nëb et c'est à na gel wala gel bi na ko parce que man je crois que ñaar nit yi nga xamante waroo leen nëbb seen relation ko nëbb wax na dëgg lu am solo mais yow gisoo nekk histoire boobu nga nettali tey euh, euh, nekkutoon ne xale bu góor bi am na lu mu bëggoon parce que am na lu mu bañoon mu feeñ moo taxoon mu teg stratégie boobu kon gisoo ne xale bu jigéen bi moom moo xaw a nooy bopp ba ñu jaar ci koom ba mu mujj perte sax li nga xamante ne moom la yoroon. waaw boo ko déggee rek xam nga xale bu góor bi tamit dafa defoon coofe defoon doore aussi roofe oore loolu yëpp la boole woon waaye noonu man je pense que ni moom.

dakaa bëggoon ba gëmewu ko xam nga rek jigéen ñi suñu bëggee dañuy aveuglé moo tax ba mu ko waxee yamal ma fii bul wax bul siwal suñu relation moom it mu nangu loolu mais gélbale ba mu ñëwee dafa imposé wu loolu la ko doon jéem a imposé sax nañu nëbb nañ nëbb su ma la waatalee ne gel bi moo dem woowi beneen gel bi ne ko yow da génn ak diw mu ne ko déedéet mu ne ko laaj naa la ko ñetti yoon bu nga ko génnoo leen nag man damay génn ak moom te dama ko bëgg te xam ne da ngeen di génn génnuñu taxul ma ba ko ndax léegi bëgg naa ko effectivement dégg gën na leer kon di soo ne deuxième bi moo ëpp chance parce que dafa ñëw publier lépp dafa ñëw teg lépp li nga xamante ne moo nëbbutoon mu teg ko mu ne fàng boo ko defee ku ñëw xam mun naa ne première bi day perte kon gisoo ne tamit euh, il faut ñu communiquer mais il faut que ñu wone li nga xamante ne moo nekk si ñun lu ñuy dund. fan ne deuxième bi daa am fulla. effectivement fulla la am ci mm-hmm. boppam. parce que yow munoo ne comme ni mu ko waxee mm-hmm. ñaari ñu bëggante. Mm-hmm. yow da ngaa bëggante nga ne da ngeen bëggante dëggantaan. mënoo ko nëb ku la gis sa dee xam ne ñaar yi am na lu nekk seen diggante kon yow euh, puisque deuxième bi dem na ba wax ay kii yow nu mu tuddati ay intention te laajte na ko mm. loolu je ne pense amu fa trahison ah, amu fa trahison amu fa suufee tamit parce que laajte na copinam bi lu leer la ko wax génn maak moom génn maak moom moom mu tenté chanson pourquoi pas moom mu tenté chanson pourquoi pas mais Diegane damay ñëw euh, poser la benn question tey yow mi nga xamante ne tamit euh, ndaw nga yaa ngi affronter yu mel noonu tey benn affrontement bu melee noonu yow nan nga pare pour euh, tenir li nga xamante ne moom mooy souffrance bi nu muy méttee ci xol ak ni nga xamante ne tey noonu nga ko fas yéene dundee tey yàlla bu la meen benn góor boo xamante ne mel na nu mu war a mel. présenter que say copines am kenn ci sa copines yi suufu la def li nga xamante ne. moom mooy dikko bu ñaaw boobu yow tey nan ngay continuer sa relation ak sa copine boobu. en euh, fait man du ma ne loolu du ma du ma dal de mais xam naa ne am naa matadi boo xam ne du ma gaaw a dal parce que aussi yow nit ki nga bëggal je pense que lu muy dugg danga koy xam yow it looy dugg da koy xam c'est man moom man yàlla dafa def ne man xaritoo nii rek laa si xam dañuy mën a dem mënuñu ko ñu baax man du ma ànd ak baadoo la du ànd ak warkat yàlla moo ma def loolu parce que man maa amul patience bi di xaar ba nga may war. xam nga lu ñuy wax rek nit dangay xool ki nga yem ak jikkoo ngeen di ànd tamit man nit ñi dañ naan dee déedéet ñaar ñu yem jikkoo waruñoo ànd dangay xool ki nga yemul ngeen complémentaire déedéet man gëwuma loolu parce que koo yemul ak jikkoo day métti ngeen ànd mais nit man boog man jéegaan ñaa xam naa ne ku mel ne man du nekk warkat te man su may ànd ku dama lay xool si sama bopp mais d'accord xam naa tànn nga xarit bi nga war a tànn mais des fois tamit xarit dana dem ba ci biir mel neneen ak ni nga xamante ne noonu laa la joxee question bi maanaam soxore jéegaan tey am na koo xamante ne man mii kat aw ma ko mm-hmm. kon est-ce que tey du ma ko soxoree li nga xamante ne moom la yor parce que ba léegi ci biir amitié dañ fiy gis yu mel noonu côté boobu laay waxee pour en cas un jour bu la dalee yow nan nga fas yéene réagir da nga fas yéene bàyyi sa xarit boobu wala da nga ko fas yéene bàyyi sa copain boobu wala yow xeex moo la koy jaral ak leneen lan jamais de la vie bàyyi sama xarit ndax góor loolu moom xalaatuma ko sama fukki xel xalaatu parce que man jaraluma pourtant sa xarit la la même bu ma suufoo erreur day am aussi nañuy comprendre erreur day am gis nul n'est parfait fii la kenn kenn matul lu bi te man ma jaralul sax bàyyi sama xarit parce que góor dafa aussi gis nañ fi lu ne gis nañ fi jabar bu fi rey boppam si jëkkëram nekk si moom sonn ba mu amee mu dem takk ñaareel lu nekk lañ fi gis kon man góor boobu taxul man may bàyyi sama xarit naam sax bu defee erreur gis nga erreur day am mais nga gindi ko bu defee erreur nga gindi ko am na nu muy rusee fane wóor na yàlla leçon lay nekk si moom ba ba ba muy sàngook suuf mais man gëwuma loolu damay bàyyi man benn góor du tax man ma bàyyi jigéen maa ko waxee mu doon gëm-gëmam waaye tamit xam naa ne xelu xale bi des si moom ba tey yow maam Fatou yow tey est-ce que loolu jar na nga bàyyi ko mu sedd parce que nag ku góor ki da ko bëgg ko bëgg lu def xam du yoon kon est-ce que yow di nga ko bàyyi mu sedd est-ce que boo ko mu sedd duñ ne Fatou kat yambar la moom kat mi ngi am gentleman bu mel ni waa ji mu mujj bàyyi mu sedd ki nga xamante ne moom mooy Fatou Diatta rek mu ko est-ce que di nga mu waaw euh, Fane comme ni ko avion la joxe wax na bëgg ba Fane man ba nga la bëgg ko. <laughs> sama xarit ñëw di ko Youssoufé ma ne ko dama koy dama lay baal. doo ko bàyyee yàlla. non loolu bu ma ko defee. Mhm. je deviens nu ma koy waxee sax damay trahir sama bopp. parce que li nga xamante ne comment dire mbëggeel. Mhm, mhm. mbëggeel fu fu nit ñi fu ñu ko teg ak fu ma toll du moins dafa bër dafa ëpp doole. comprendre kon man mënu ma nekk njëgaan mënu nekk sama xarit ma am sama coofe. bëre roofe doole. am ko pour man kese. Mhm. moom mu ñëw di may suufe mhm. après suba ñu ànd dem. Mhm. kon la même bu ma ko bàyyilee tout tranquille waaye dina am luy wàññeeku suñu diggante confiance bi dina wàññeeku bu baax. dëgg confiance bi dina wàññeeku bu baax te man xaw ma instant boobu. parce que am na góor yi nga xamante ne je peux dire dañuy doon ay victime daal waaye boo gisee ñaari kii couple diggante ñaari kii ku góor ak ku jigéen nekkul di dox communication bi moo doxul. parce que njëgaal mënul jóge fële gisante ak euh, man ki may génneel ci perte parce que. présenté naa leen ba ñu xamante ba pare je suppose ni defante ni confiance jàpp na ko comme xaritam njëgaan jóg fële di koy naan yow sa kooku noonu nii la mel nii la mel moom benn nopp la moo ngi dëgg rek fa la yem te yéen nekkoo leen di man ak moom nekkuñu di communiquer lu muy waxtaan ak kee nekkul di koy waxtaan ak man bu yàggee suufe bi foofu lay jógee comprendre te day gëm kële lu mu koy wax alors bu ñëwee waxtaan ak man bu ñuy am discussion moom may xam ak petit à petit mhm. loolu yëpp di ko fi daal mhm. waaye sama xarit boobu ku ma suufee mhm. oh, pour baal ko du yomb de wax dëgg yàlla man damaa jàpp ne maam maam Fatou comprendre fu may waxee waxuma genre que nii dama koy bàyyi non loolu mënul nekk sa loolu bu mu ko defee xanaa war nañ ma xool ndax man bëggoon naa wala bëgguma mais genre comme genre topp ko si daal ba mu sës noonu ndax góor xam kan nga rek jigéen ñi ni ñu koy defee fii dem si mbedd bi xeex gàjjante nag moo jël sama mais yow day mel ni da nga desee xam mbëggeel bu ko jaree dañ koy def est-ce que jaw non non yow déedéet yow xam nga ne sa sa sa copain bi la jël bala dem jëndee la ak keneen yaa ngi may dégg waaw doo wax si bu saaga jëndee ak keneen yow mënoo muñ affaire Moussa yow ñun ñun keroog a la garaaw mënu ko muñ. ba mu la jëndee ak keneen. kon kooku xam nga ne bëggatu la. Mhm. kon kooku déjà mbëggeelam da nga koy remettre en cause léegi avec ça man kooku est-ce que jaar na man tamit ma si yàq sama réputation ba àdduna yëpp di di di ma xamal kooku nga xam ne daf ma war kooku nga xam ne est-ce que bëggoon na ma sax man déjà. pour man situation bi ba ma fa nekkee xam nga la laa war a posé kii kon mosuma woon bëgg kii daf ma doon nax mais déedéet du ma ne bëgg ni ma ko bëggee ba mu jaral ma may dem si mbedd déjà war na ma ba pare war na ma benn déception boobu. loolu dëgg la mais tamit waaw. non xam nga sànq moo ngi doon wax xaritam bu ko euh, bu ko suufee. moom dina ko dina ko baal mhm. parce que euh, nit moo matul. nit moo matul waaye yow sa copain bu la defee loolu tamit da nga ko nar a baal parce que nit moom tamit. nit la ni kooku matul ah lu tax doo ko baal xalaatuma da ma doon wax comme nu mu waxee euh, nu mu tuddati moom mënul baal ku góor gi ku góor gi parce que erreur bu mu def mhm. ku jigéen ki loolu la def yow fu nga demee ba baal ku jigéen ki tey parce que sa xarit la yow da nga jàpp ne ku sa xarit la moo suufee sa moo la suufee daal mhm. nga ne moom ngay baal te doo baal ku góor gi mhm. ku góor gi nit la ni ku jigéen ki kon da nga ko nar a baal man di man sane dama yaakaar ne comprendre comprendre ma baal bi nekkul question eh baal naa la après on est ensemble lañ dem genre comme genre niko ko jigéen ñi sama mbokku jigéen ni nañ koy faral di dundé di turum dem di xéx ak xuloo di tiisante woojal bi man manam loolu moma ma dul fekk. loolu est-ce que kon dina woné yow sa amour bi nga xamante ne mi ngi won sa diggante ak goor ki parce que yaakaar naa ne boo bëggee ñëpp xam na ne kii yow yaay borom am kenn ku fa jaar mais bu ko jëlee war nga ci dem ba seuss dem ba seuss kantaat dem ba sës nekkul né damay dem non xéx ak mom nga jënteeg mom non non loolu man ko dépassé instant yi xam nga ban période lañ toll bi nga xamante ne mbëggeel si boppam xane dafa commencé perdre valeur am li nga fi wax ni yépp ay firndeel la si parce que waaw d' accord parce que mbëggeel dafa commencé perte valeur mais tamit fu ndox doon taa boo fa demee fekk fa tepp tepp ñi nga xamante ne ñoo ngi doon bëgg yor xolu bëgg ba léegi ñoo ngi bëgg Mame Fatou day mel ni ba léegi jéegaan euh, euh, moom euh, bëgg dafa nekkul ci moom wala tey génération jeunesse bi nga xamante ne tey dañoo jàpp affaire mbëggeel da ngay yor sa benn crayon boo xamante ne heure bu la neexee ngay bind heure bu la neexee ngay gomme ça veut que du la mën a def da benn effet ci yow par rapport ak tey ñi nga xamante ne dañ doon dund mbëggeel bu pur bi nga xamante ne bu ñu bëggee bëgg nañ bu ñu bañee bañ nañ mais malheureusement day mel ni génération boobu gisuñu ko si société bi parce que bu ñu déggee ci waxam loolu la ñuy dégg. Euh, sama sœur bi dama yaakaar ne moom day fan. day fan moom ah exact loolu laa yaakaar day fan waaye du bëgg. du bëgg comprendre mhm. man bu ma waxee euh, sama xarit bi lu bëri dina wàññeeku suñu diggante. Mhm. pas ka pas ma dem jàkkaarloo ak moom di xeex di def yéen sens de l'animosité mhm. boobu bokk ci. comprendre waaye dama koy dama koy doxal mun euh, naa wax in professionnel intellectuellement du moins ma won ko ni lu mu def baaxul waaye kantaa dem di gàjjante di kii loolu moom. sëkkuma ko moom jërëjëf euh, sama chroniqueuse yi maa ngi fàttaliku mbokk internet yi nga xamante ne ñoo doon seetaan seen émission Bradek ki kaas tey dañoo indi thème boo xamante ne thème bu neex la waaye tamit thème boo xamante ne bu concerné képp kuy ndaw ci Sénégal muy lan souffle gis nañ fi jamono da ngay am ki nga xamante ne moom nga bëgg lool lool présenté ko say xarit waaye ñu mujj jaar ci sa ginnaaw def li nga xamante ne genre trahison lay doon ñu amoon suñu plateau suñu ñaari chroniqueuse yoo xamante ne.

que mooy nit ñi nañu defaraat jikko yi waaw te ñu dëggu aussi parce que aussi loolu yëpp boo ko gisee ñàkk dëggu moo koy wane nit boo dëggoo yaakaar naa ne war nga jomm di suufu ki nga ki nga ne genre xaritoo xaritoo dafa nekk loo xam ne dafa graaw aussi dem dugguñu ci ba ci biir mais xaritoo pour man genre pacte la daal bu nit di def ak moroomam genre loolu boo ko defee war nga ko sàmm tamit war nga jomm di indi loo xam ne ñaawtif lay nekk te muy jóge sa boor aussi jigéen ñi aussi ak muy góor ñi aussi ñu ñu seen bëgg-bëgg daal ñu gën ko gëm parce que loolu yëpp tamit même bu la sa xarit maanaam yow sa gel mun nga ko jël présenté ko keneen sa xarit boobu suufe la loolu day wane ne aussi mbë mbëggeel mbëggeel mbëggeel moo amul woon sa gel bi war na xoolaat la moo tax ma ne sincérité pour man laa fa gisatoo sincérité dafa nekk loo xam ne dafa rare instant yi ma te nit ñi war nañ ko wutiwaat parce que aussi loo gis mooy fondement bi loo gis mooy fondement bi te sincérité dafa war a am fi nga xamante ne tey mooy entre amitié yi maam Fatou soxla nañ solution gis nañ idée yu pertinente yi nga xamante ni moom nga fi tey en tant que tay ben euh, euh, femme bo xamantene ne war nga mën joxe conseil ci sa géné mbokk géné femme yi jigéen ñu génération yi tay lan nga la ñuy jox comme conseil euh, femme yi ni ma la ñuy jox comme conseil mooy na ku nekk jàpp fu nga jàpp rek boo demee ba def sa choix nga tànn ni kii la jàppal foofu te dara bu ma tax nga ëlbatu di dem di suufe sa morom jigéen loolu lay comment dire loolu lay recommander sama mbokk jigéen yi te góor waa te góor yi tamit nañu xoolaat bu baax fa ñuy dugg mm-hmm. est que kii ki suufe xaritam mm-hmm. dina mujjee ak moom bu mm-hmm. baax ndax du ko def suba du ko def suba waaw mu nekk lu am solo mbokk internet yi tey lii lañ amoon ak yéen indi ko mu nekk thème bu am solo ndaxte thème bi lan la mooy suufe moo xam si ku góor moo xam ko jigéen jamono da nga am sa xarit mu doon koo xamante ne day sori si yow lool bu neexee mi ngi ànd ak yow bu naqaree mi ngi ànd ak yow mais tey jamono bi bu neexee rek di nga gis ki nga xamante ne moom mooy sa xarit mais bu naqaree doo ko gis te xarit boobu dafa doon am li nga xamante ne mooy dignité am ay valeur yoo xamante ne da koy xool ci yow ba respecté la si lu bëri mais malheureusement loolu gisatuñu ko yàqu-yàqu jamono tey gis nañ di nga ànd ak sa xarit vingt ans vingt cinq ans trente ans au plus de sa mais am loo xamante ne bu leen boo ko sekkee rek mu wane boppam mu doon loo xamante ne xeetu trahison la te yaakaar naa ne yonent bi nga xamante ne moom mooy suñu idool moom mooy gën di mbindéef jàngal nañu li nga xamante ne boo ko gisee sa xarit jàppal ne sa xarit la bokk na si bés boo leen sekkee li nga xamante ne mooy xaalis sérieux am seen biir ba kenn du mere moromam loolu kooku sa la mais tamit bokk li nga xamante ne mooy tukki yaakaar naa tukki nu mu lépp di jàmm seen diggante ak moom loolu tamit day wane ni kii sa xarit la mais bokk nañ tamit ngeen sekk lenn muy lu ama am solo muy jigéen dox seen diggante kon boo leen sérieux seen biir rek dañuy xam ne kii sa xarit la kon mbokku internet yi nga xamante ne yeneen suivre seen émission Bras de Casse am nañ mbégte bu baax a baax a baax ànd ak mbokk chroniqueuse yi nga xamante ne ñoom laa ànd ak si plateau bi ñoo ngi leen di gërëm di leen sant bu baax a baax seen disponibilité ñoo ngi leen di jox rendez-vous ci suñu beneen émission Bras de Casse jërë ngeen jëf